ndax sunu IPRES dañ ko war a jubbanti li ñu war a njëkk a lijjanti moo di ne la réforme des textes qui date de 1958 au temps de De Gaulle De Gaulle dee na ko bindoon ñëpp dee nañu siècle beneen bi ci topp mooy l' augmentation substantielle des pensions ndax ñun dañoo yor kër yi ba léegi suñu doom yi liggéeyuñu ñoo yor kër yi te waroon na toog muy dox retraité rek moo am droit toog muy dox ndax doom yi liggéeyuñu dépense ba ñu yoroon ñun ñoo ko yor ba léegi. kenn ku ci ñun ku nekk ci ñun boo joxee sa paas yu yàkkam ne nga dem sa kër jënd ceeb ak diwlin ak fay courant ndox loolu daa war a jeex ah yaakaar nañ ci nag bu président bu bees bi nga xamante ne xale la yàllaa ko fi teg ndax man de bu ma bu ma ko gis dafa mel damay gis Cheikh Anta Diop ak Mamadou Dia man loolu may fàttali ndax réussir nañ ko ñoom te yaakaar nañ ñu réussir ko fii waaye waaye nañ ñu defaral suñu IPRES bi nañ ko jël en charge tekki seen loxo fexeel ba réformer les textes on n'a rien à contre nit ñi ko yore woon. amuñu lu ñu leen wax dañu leen gërëm au contraire waaye na ñoom ñi nga xamante ne ñoo ñëw nañu rafetlu suñu texte fexe ba ku feebar gratité ñu faj la. loolu yëpp dañ ko war a def dañu war a am voix délibérative au niveau du conseil d' parce que ñaar ña fa nekk ay observateur la ñu def amuñu fa benn njëriñ dafa war a leer dañu war a am voix délibérative am fa baat. voilà veuve yi dañuy sonn trop veuve yi dañ so joxe naa benn exemple fii jëkkër boo xam ne rek dafa am quatre femmes. mu am pension cinquante mille l'IPRES point autorisé na ko mu récupérer la moitié ñu jox vingt cinq mille francs aux quatre femmes ñu distribué leen ku nekk six mille et am six mille lan la mën a am mënul sa am néeg tu vois donc seen pension war nañ leen yokkal tout récemment yokkoon nañu pension yi mais ñoom kenn yokkal leen dañ leen laissé en rade ñun dañu bëgg ñu yóbbu leen au moins au SMIC soixante quatre mille et un peu plus. si loolu euh, prise en charge médicale euh, boobu les retraités sont très fatigués. chaque centre de santé nañu de nañu installé benn structure médical pour les retraités. waaw OPIS ODI ODI IPRES jot na jot na parce que nous estimons que vraiment euh, l'IPRES là la gestion. dañ ko war a seetaat dañ ko war a càmbar